ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ngi fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dars jawaahir al maani <coughs> nag di suñu juróom-ñaar fukkeelu dars ak juróom ñu ngi ci juzu saani bi ci téere bi ñu war a ci page cent treize mu ne wa ka qawli baad al aarifin kon mi ngi woon di wax ci sataxaat yi nga xam ne wuli yàlla yi daan nañ ko wax ku ci mel ni abu yazid al bastaami ku ci mel ni cheikh abdul qadir al jilani abul abbas al marsi ibnu farid seen wax yooyu nga xam ne ñu ngi koy wax mu ne wa ka qawli baad al aarifin ak am lu mel ni waxu ñenn ci aarif am na ci aarif yi ko wax yu am solo ne nihaayatu <clears throat> nihaayatu aqdaami nabiyin bidaayatu aqdaami awliya mu ne fi nga xam ne fa la ndëggu yonantu yi yem fa la ndëggu wëlu yàlla yi tàmbalee loolu nag ay wax la yoo xam ne wax yu jara firi la ndax Mawlana Cheikh Tijaan radiyallahu anhu wax na lu mel nii ne fi xutbu yi yem fala samay taalibe tàmbalee nihayatul aqtaab bidayatu ashaabi loolu nag bu amee lu muy tegtale mooy yonantu bi lam jàngale woon te Cheikh Ahmad Tidiane indi ko wan ñu ni lépp luy ballee ci jëmmi yàlla ji yonantu moo koy gàttandu luy ballee ci nubuwatu moom Cheikh Ahmad Tidiane moo koy gàttandu moo tax lépp lu ruusee ci ndëggul yonantu yi rek wëli yi ñoo koy gàttandu kon yonantu bi ak wëli yu bi gars yi dañ koo jamu waaye dañ koy ifraat أقدام النبيين موي قدم النبي أقدام الأولياء موي قدم الولي النبي يبي موي يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم بروم نبوته ولي يبي موي شيخ أحمد الشيجان رضي الله عنه بروم بدايته متابعين رضي الله عنه وقلنا كي أيوة ينصحني ألم تسل الختم التيجاني قاتما وعليته فوق شيوخ الأكابر ndax du yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa mu ñëw kaste wilaayatu ba pare nga jël ko teg ko ci kaw sëriñ si yëpp kon loolu la cheikh cheikh tijaan radiallahu rawee mboolem wëliyu yàlla yi kon ku nuur ci géejab wilaayatu génn ci géejam ci nga naane موتاخ لا يفقى ولا يفرب لا يفرب ولا يفقى ولي الا من بحرنا امول بن ولي بوي نان ولا موي ناندل لودو سي سوني جيجي لاي ناندل واخ جوجو ناج مولانا شيخ تيجان اك وخي كو جيتو سي لا اندي تونت مولا الجواب عن هذه السطحات تونت كي سطحات ان للعارف وقتا يترو عليه الفنان arif dafa am jamono jo xamne fana u daf koy dikkel wal istighraq ak lab ci jëm yàlla ji hatta yakhruja bi dalika an da'irati hissihi wa shuhudihi ba nga xamne fana u bobu diko dal dina ko genné ci ak yëg-yëgam ak ak fedo ويخرج عن جميع مداركه ووجوده مجن في مبولم خم خم بم أمون ak nekk teefam gi sax dootu ko yëg lakin waaye taaratan léeg-léeg yakunu dalika fi zaatil xaq léeg-léeg jeex googu muy jeex dafay nekk di jeex ci jëm yàlla ji subhaanahu wa taala kon kooku mooy jeex ci eh, ci jëm yàlla ji fa yatadalla lahu quddusllahut bu ko defee nag xam nga jeex ci haahut wëlbatiku daa di wàcc mooy fayata dallaa mu wàcc lahu ñeel ko qudduusul laahut sell ak péeb min baadi asraar yi lenn ci ay mbóotam faydan ci bëbb yaqtabi minhu bëbb googu dafay làmboo tukkee ci moom annahu yashhadu zaatahu ayna zaati alxaq ne moom dafay seedu jëmmam ji mooy dëgg dëggi jëm yàlla لمحقه فيها نخفر لنا قمنا جمم دي فرنا كي جميع الله واستهلاكه فيها خلق لنا قمنا جمم دي ألقنا كي جميع باتو بعد في فينا سريود ألقان دي بنا فوق موي جيهرك بي جام بجيهتي الله ويصره في هذا الميدان بقوله بقوله فينا سدمي بكتلو كي بلا جيو دنيا جسمي وحصراحة ne subhaan yi tudd na ma sama sell léegi waxatut subhaanallah ndax nekku feeg yàlla yàlla fi ne subhaan tudd na ma sama sell laa ilaha illa ana wahdi amul benn buur bu duwut man dong foofu nag aji déglu gi mën naa foog ni waa day woote ab uluhiya waaye waa ji waxut yàlla waxee ci moom kon nataqa bi lisaanil xaq la ko waxee ci làmmiñu yàlla minat mu ne minat tasbihaat ak ay xeetu sàbbal ka qawlihi lu mel ni wax waxu aarif ba jëllat azamati sama mag maanaam maay ki màgg wa taqaddasa kibriyaa yi sama rëy lu fell la wa huwa fi dalika maazurun loolu nag jamono bi mu koy def day nekk jamono boo xam ne maaduur lay doon maanaam ku ñu jéggal lay doon ndax kenn ko topp dara ndax xaal boobu day gaar jaam bi waaye nag du doon lu yàgg xaalal xaal laaya duum xaal boobu du sax su saxee rek pexe la bu jaam bi di pexe te day indi dammum ruuxu day indi tamit nga nga réeteeku ci pee yàlla moo tax ku dem ba xam yàlla yow yaa war a gën a ragal yàlla xel alladi bi nga xam ne yumayizu bihi shawahid ci lay nit ki di ràññee yi muy seedu wal awaid ak aada yi wa yutihi tafsil al maratib xel moom nga xam ne mooy jox nit ki mu mën a teqale martaba yi bi maarifati kull kull bi ma yastaxiquhu min asifaat ci xam kenn ku nekk lim yellool ci ay melo gaaba anhu xel moomu moo fàddu wëlëf mbindeef boobu wan ma xaqa mu faru wa talaasha mu daal di feey wadd ma xalla mu nërmeelu ci jëm yàlla ji wa inda dalik moo tax xel dafa bokk ci nisab yi nga xam ne nisabul xalq la lil xaq wa inda faqdi hada al aql jaam bi nag su ñàkkee xelam woowu wa dihaa bii xel ma dem ko defee nag wa faydu dalika fir alqudsi alayhi wa faada mu nga xamne moy mbod mu sel mi ci mom takallama bima takallama bi ci kam xaal bobu nak ci lay waxe waxam yi muy wax subhani ma adama shani la ilaha illa ana wahdi jallat azamati taqaddasat kibriya yooyu yëpp su deme ba yegi foofu rek la koy mana wax fal kalam alladhi waqa fihi Eh, eh, xalaqahu lxaqu fii niyaabatan an kàddu gi nga xam ne mooy ballee ci moom yàllaa ko ko mooñaale ngir mu remplacer ko ci fa huwa yatakallam bi lisaani kon moom day waxee ci làmmiñu yàlla laa bi lisaan yi waaye waxeewut ci làmmiñam moom wa an zaati laa an zaati kàddu yi muy génne yi ko yàbbi kàddu la yoo xam ne dafay génn ci jëmmi yàlla ji waaye génneewut ci moom wa haada wa haada al maydaan ci bile domaine ci la aju xawlu abi yazid al bastaami waxu abi yazid al bastaami bi muy wax ni subhaani tudd na ma sama sell ma aadama sa nii amut lu gën a rëy samay mbir wa qawlul xallaaj ak waxu xallaaj li ñuy wax ni anal xaqu man maay xaqu wa ma fi fil jubbati illa allah manto bi daa nekkut fi kuduwut yàlla wa qawli wa ka qawli baadihim ak lu mel ni waxu kenn ci aarif yooyu fal ardu ardi suuf si samab suuf la wa samaau samaa'i asamaan si samab asamaan la wa ka qawli ashistiti moom tamit dafa wax ni undur ana shay'un ajabun liman raani mu ne xool ma man mbir la moo xam ne mbir mu yéeme la ci képp koo xam ne gis na ma anal muhib man maay soppe bi wal xabibu maay ki ñu sopp maanaam ma maay ki ñu sopp te man maay soppe fama sama saani ñaar amut fi وكقوله لمن وهم جبتي انا من اهوى ومن اهوى انا من ماي كيغا كيما صوبو كيما صوبو يتامت موي من ما يلا يلا دي من واقوال ابن فارد مثل هذه كثيرة ابن فارد نقلم وخش دومن بي بارنا لول اه، وهذا مما يعطيه الفناء لي موقع جوخ فناء والاستغراق اكلب في ذات الله في جميع الذي وهذا أمر خارج عن القال lii nag dafa génn ci ay xiila xaal du ay biram xel dafa nekk ci maa wara al aql ginnaaw xel yudraku bi zawq lii nag pour nga jot si ci mos rek nga koy jotee wa safa il axwaali ak cellub xaal kon fala yalamu xaqiqatahu illa man zaqahu fala yalamu du xam xaqiqatahu dëgg dëgg xam-xam bi illa man zaqahu lu duut ku ko mos kon ku ko mosut munoo koo xam loolu lay wolof di wax naan lu mu ku ko màcc moo ko mën a xam wa taratan léeg-léeg yakunu l istigraq lil lab gi day ñeexeel bi wal fanaau fi zaati nabi sallallahu alayhi mu jeex ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xaybatihi an zaatihi ngir fàddu gi mu fàddu wëleef jëmmam ji fi zaati nabi sallallahu alayhi ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi kon jeex ci yàlla jeex ci yonantu bi duut lu bees noonu na Cheikh Tidiane radiyallahu moo ko njëkk jàngale fa yatadalla lahu ndax sufyanke yi fi njëkkoon yépp dinañu am fanaawu fi zaatillah waaye jeex ci yonantu bi seen problème la woon bu rëy rëy rëy rëy Cheikh Abdul na foofu na ci yàlla jeexoon ci yonantu bay ñetteelu mbóot mi moo taxoon mu mën a wax fa lillaahi xalfal ismi wal wasfi madharun wa anhu uyunul aalamina hawaiju xam nga mazhar boobu muy tudd mazharu Cheikh Tidiane la radiallahu anhu kon jeex ci yonantu bi sallallahu alayhi fa yatadalla lahu sallallahu alayhi wa sallam bi baadi asrar yi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wàcc ci kawam lenn ci ay mbóotam fa ida kusiyat zaatuhu dalika sir jëmmam ji nag suñ ko hoddee ak woowule mbóot fala yashhadu zaatahu illa zaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam jëmmam ji du seedu lu dul jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa yuallimu llahu baadi ma xtasa bihi nabiya bu ko defee nag yàlla xamal ko lenn ci lim jagleel yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam min al xususiyaat ci ay jagle allati yi nga xam ne laamat maa fiha li gayrihi sallallahu alayhi wa sallam ay jagle la yoo xam ne kenn amut capacité yegg si kudul mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko defé nak jam bi fa yatakallam bu demé ba jeex ci yonentou bi jeex bu tol noonu fa yatakallam bi lisaani nabi muy waxé lam làmmiñu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niyabatan anhu ngir wutu ko bi ba'd ma stafra allahu bihi nabiya ci lenn ci yi nga xamné yàlla jagalel nako yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam min xususiyaatil azam ci ay jagle yu mag ما له به علو وشرف وشفوف على مراتب جميع النبيين والمرسلين dina loo xam ne dina ko may kawek ci maqaama tedd nga ak ci tamit xeeñtu martabaay mboolem anbiya u yeeg mursaluna yi fa huwa yuxbiru amma aata nabiyahu muxbiran an nafsi dafay joxe xibaar mu tukkee ci moom waaye ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ballee maanaam dafay jottali kàddug yonent bi sallallahu alayhi wa mu génnee ci moom fa man samiahu képp ku dégg nag yazunnu annahu yansibu li nafsi day foog ni wax ji boppam la ko askanale waaye wa innama nasabahu li nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ko askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xëybatihi fi zaatihi ndax moom faddu gim faddu ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa idan fasala an hada alfana su demee nag ba am ak ak teqaloo ci boobule jeex wal istigraq ak lab gim lab ci péer yàlla bi wa rajaa li mu dellu siwaat ci ak yëgam wa shaahada wa shaahiduhu ak ak seedoom tabarraa min dalik dafay génn ci loolu ba set wet ki taxawoon ne maa di yàlla bu génnee ci xaala fanaa dootu ko taxaw ne maa yonantu bu génnee ko waxati ni ki noonu ki jeex ci Cheikh Tidiane noonu ki jeex ci xalifa bi tamit noonu kon ñeent yooyu moom ku bëgg a nekk aarif bu mat faaw nga jeex ci ñeenti xaqaayiq yooyu muy xaqiqaab yàlla bi yonent bi chatiyaan ak xalifaam bi euh, bu ko defee nag euh, tabarraa min dalik bu demee nag bay delluwaat ci yëgam dafay génn ci li mu woote woon ba mu set li ilmihi bi martabati ndax xam bi mu xam martabaam wa sawq hada al masaq fi kulli ma tasma min alshuyuq mimma yaqtadi anna lahum sufufan ala maratibil mursalin wax jii nag moo lay yóbbu ci lépp loo xam ne yaa ngi koy dégg ci sëriñ si ñi koy wax ci ay wax yoo xam ne dafay dafay mel ni dafa làmboo ni dañuy wax ni yéeg nañ ci màttabaay yonantu yi loolu euh, ak mursaluna yi lu mel ni waxu imaamu dusuqi bi mu wax ni ana kuntu maa nuuxin lamma shahida alwara بهورا وطوفانا على كف قدرتي mu ne lu mel ni waxu al imaamu dusuuqi bi muy wax ne maa ngi nekkoon ak nuux ba nit ñi di gis géej ak tuufaan gi te géej ak tuufaan gi yépp ala kafi qudrati mi ngi nekkoon ci sama kattan ak tenq gi maanaam maa ko doon alim maa ko doon maa ndoomu bëri mi yëpp maa ko doon ballal mu fekk si ni ana kuntu fi ru'ya zabixi fidaahu wa ma anzala bilkaffi illa bi quwati mu ne ci gént Ismaayila ga maanaam gént ak yonent yàlla Ibrahima ba mu géntoon di rey Seydina Ismaayil man maa ki ko jotee woon kapsu ba kuy la maa ko wàccee ci sama kàttan xam nga loolu yàllaa ko def waaye jeex bi mu ci yàlla moo tax mu waxee ci làmmiñ mu ne ana kuntuma ayuba fi zamanil balaa maa nekkoon ak ayub ci jamono di ko balaa ba dale wa ma sufiyat بلا بلواه إلا بدعوتي إيه، بلا أم جوجو سافر أو تلود في سماي نيان لا سافر أو يسكي سيدنا أيوب موهن ربي إني مسني الدر وأن ترحم الراحمين في كلام أيوب لواه وأكثر من هذا رضي الله عنه أكل أكل لي صحي أي وحي ملني wax na ko moom imaam Dusuqi fa kullu dalika lii lépp nag moom na Cheikh Tidiane ne li fanaa'ihi fi zaati nabi sallallahu alayhi li tax mu di ko wax mooy dafa jeex ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di interpréter an maqaamihi sallallahu alayhi wa sallam di maqaam ab yonent bi sallallahu alayhi lay bàyyi di wax ni qawlu cheikhi ka tarjumani rasuli waxu Cheikh Tidiane dafa mel ni Cheikh Tidiane moo interprété yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem li muy wax lantinoor la daal wa hada yaani fi ljawaabi wa min waraai dalik ma la yulxiquhu alaql wa hada yuani Cheikh Tidiane radiallahu anhu lii doy na ci tontu li nekk ci ginnaaw lii nag xel mënu koo jàpp moo tax duñ ko wax wala yati alayhi alqawlu kàddu mënut koo wax ولا يحل ذكره ذكره دغن نيو ديكو تود لي بعده يعني دا فام داخ ليم سوري اي ديك ديك والسلام وهذا الذي ذكرناه لي نتود من فناء العارف في ذات الله تجاهك عارف في جميع الذي وفي ذات النبي اتجم يون صلى الله عليه وسلم ليس هذا لكل العارفين لي دوت عارف يبنيكم انا بان رضي الله عنه وهلني وقد تتبعت كلام ارباب المعارف طبناك kàddu ñi nga xam ne ñooy woote xam yàlla waaye gisuma leen du duut ñi ngi taxaw ci xadamul wula muy ndëggulu njëkk li muy jeex ci yàlla ñaareel bi yegguñ fa ñetteel bi yegguñ fa kon nan la ñuy xeeñcoo ñeenteel bi wala fi kulli waxtin duut ci waxtu wu ne ci waxtu yi lay eh, xaal yu mel nii di gaar taalibe بل هو خاص لبعض الأوقات على دفق جاكل ينك وقت لبعض العارفين فقط نيال ينك عارفي دون والسلام استدراك دباتل كلم دون تنت البحر الذي خاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت الأنبياء بساحله لولو نيوان سجناو ودونك بحرا خصتو وقف الأولى بساحله صونا لموضع حرمتي comme ni ko ibnu farid waxee xudna baxran waqafa al anbiya bi sahilihi lol tamit yaakaar naa abul abbas marsi moo ko wax wala abu yazid bastami abu yazid bastami moko ko wax xudna baxran waqafat al anbiyaa bi saaxilihi xuus nañ géej goo xam ne yonontu yi dañoo taxaw ci texe wax jooju mu ne hiya bihaarul xaqaayiqi mooy géej ak xaqaayiq yi géej gi nga xam géej gi nga xam ne tajallallahu biha alayhi duna gayrihi yàlla dafa def te jëlli ci moom wëleef ku duwut moom min akaabiru rusuli ci mag ci yonant yi maanaam yàlla dafa def ci yonant sallallahu alayhi wa sallam yu mag wan nabiyin ak ñi ñu solo fa man duunahum rawatina ñi leen féetee suuf ilaahaluma jarrabam jeex فإن ذلك الحقائق فإن تلك الحقائق ده يوي الحقائق لو تجل الله بها النبيين بك يلا فيني وان تيون انتوي ني والمرسلين اني يوني ولو بأقل قليل من دون تكلي جن نيو تلي نيو لكو فيني السنكو لصاروا مخد العدم في أسرع من طرفة البصر لنين مقبجيه تك تلو جنجاو خفتك wa innama waqafu bi saaxili tilka tajalliyaat dañoo taxaw ci tefe sab yooyu la tajalliyaat wa hiya tajalliyaat lati te mooy tajalliyaat yi nga xam ne ixtasahum allahu biha min tuluci aljalaali waljamaal moom la leen yàlla jagleel ci fenkub melaw jalaaliitug yàlla gi ak melaw jamaaliitug yàlla gi ak màggam gi muy azamatoom kibriyaaw réem gi kon nag fa tilka alxaqaayiqu yooyu la xaqaayiq allati yi nga xam ne hiya lahum ñeel na leen ñoom bi nisbati ila xaqaayiq yi sallallahu alayhi wa sallam suñ ko askanlee ci xaqaayiq yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al munkashifati law xusuusan yi nga xam ne dañ ko ko wuññil mu ñeel ko ci ab jagle ka ka saaxili lil bahr buñ leen doon méngale dafay mel ni ni tefes mel ci géej fa innahum takallamu bi lisaani sallallahu alayhi wa sallam wali yi doon wax wax yooyu yëpp dañoo waxee ci lam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li xaybatihim fii ndax faddu giñ faddu ci jëm yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wa fanaihim fii ak jeex gi nga xam ne jeex nañ ko ci jëmmi yonantu bi alayhi salaatu wassalaam summa qaala radiallahu anhu topp nag mawlana cheikh tijan radiallahu anhu ne wa ma waraa hada min al ibarat di topp nag maanaam di nekk ci ginnaaw lii ci ay kàddu ala xaqiqatil bahri ci lan mooy dëgg dëgg géej bi fala yaxillu dikruhu loolu daganut ñu di ko tudd فضلا عن آه، كتله في الأوراق رواتنا يملكو بن في كيت والسلام انتهى جهنا ما أملاه علينا شيخنا لنخمي سيم سرين دي سيتنا رضي الله عنه من حفظه في وقت بولوزي أكباتا في مجلس واحد في بين جوتاي في تاريخ في <clears throat> و من ربيع الأول آه موي ci taarixu ngi mi ngi mi ngi nekkoon ci taarix ci ci rabiul awal ci atum mille trois cent cinquante neuf muy mille deux cent six mu ci atum mille deux cent six ci milaadi ci juddug ah, ci euh, nu ci hijri wa summiyat hada taqlidul mufid بموافقة شيخنا غوث البحر لجميع درره ومسائله في مسألة xudna baxran waqafat al-anbiyaa bi saari ñu mu ne tënk bii nag tënk bu am njëriñ bii nga xam ne Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dëppale na ko dég-dég yi ñu ko tuddee xuus géej gi ci mbooleemi maanaam mbooleemu wurusam ak masalam rawatina masala bi nga xam ne eh, eh, Abu Yazid Bastaami moo ko wax ne xuus nañ géej gi nga ne yonantu yi dañoo taxaw ci tefes bi wa muhammadin wa ali yàlla na yàlla julli ci suñ sang bi sayyidina muhammad ak njabootam gi eh, loolu di lu ama am solo kon وسئل رضي الله عنه عن قول الإمام الأكبر والقد الأشهر أبو حامد الغزالي رضي الله عنه ليس في الإمكان أبدع مما كان لجنكم مولانا شاتيان رضي الله عنه وهو إلمان بمقدي قطب بسيوبي مي أبو حامد الغزالي رضي الله عنه لمهن ليس في الإمكان نكو تلو منانا أبدع مما كان منام دردو في الصوص لو خمني موي xarañ li fi nekkoon kon lim bëgg waa rek mooy dara sosuwut yàlla day dara sosuwut bees waaye yàlla day feeñal lim sosoon bu njëkk umurun yubdiha wala yabtadiuha fa ajaaba radiallahu anhu moom moona cheikh radiallahu anhu tontu ci wax jooju ne ilam xamal ni annahu laysa fi limkaani ashrafa wa ala wa ajmal wa akmal min surati alkawni kulli mu ne xamal ni ci yi mën a nekk amul lu ci gën a tedd wala mu gën a kawe wala mu gën a taaru wala mu gën a mat ci melow kawnu bi lépp wa ma suratul kawni kulluhu illa sayidina muhammad melow kawni bi du dara lu dul yonantu bi sallallahu alayhi wa wa kullu ma taraahu fi lkawni fa suratu wal ashkaal muxtalifatu lmabaani lépp looy gis ci kawnu bi ci nekk teefi ci univers bi melo yi fi nekk ak jëmm yi fi nekk yépp dañoo wuuteek ak ak tabax walmaani wuute ay ma walmaani almuttaxida alwaqia fi jism fi fi jismin waaxid maanaa yi nga xam ne dafa bennoo yàlla daf ko tàbbal ci benn jëmm summa ma ma samma illaa huwa sallallahu alayhi wa sallam jëmm jooju nag duut fenn fu duut ci jëmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li annahu sallallahu wa sallam xuliqa min asirri almaktumi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko bindee ci mbóot miñ nëbbu moom sallallahu alayhi wa sallam wa dalilu ala sharafihi liy tegtale ak tedd nga am sallallahu alayhi wa sallam min annaqli ci liñ mën a toxal ci ay téere mooy waxam ji sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu waladi aadama wala faxr man maay sàngi doomu aadama yi te duma ko puukaréewoo Tirmidi soloona xadis boobu Ibnu Maaja yi tamit solo na ko muy xadis bu am solo yonent bi waxaat na ne inna allaha xalaqa alxalqa xatta ida fariga min xalqi ixtaara minhum bani aadam yàlla daa bind mbindee fi ba mu leen bindee ba noppi ci mbi mu tànn ci biir mbindee fi doomu aadama loolu doomu aadama xam ngeen cosaanam wa haada min an naql lii mooy tegtal yi ñuy ci li ñu toxalee ci téere bi wa fi bisaati l xaqaayiq tegtal nag ci laltaayub xaqaayiq annahu lamma taallaqat machiatul xaqi bi ijaadi xalqi yi namm namm ak yàlla gi ba nga xamee ni aju na ci mu amal ay mbindeefam wa kaana dalika min sawraanil maylil xissi yi loolu nag mi ngi dellu ci e, jéng gi nga xam ne jéng na ko ci wàllu yëg-yëg xay su yaqul muy wax ni kuntu kenn den lam oraf nekkoon naa di ndàmm goo xam ne kenn xamut ma fa ahbabtu an oraf ma bëgg ñu xam ma fa xalaqtu xalqan ma bind mbindeef fa taarraftu ilayhim ma xàmmelikoo ci mbindeef yooyu fa bii ci mbindeef boobu ma bind nag yaa aarafu nii lañ ma xamee muy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku bëgg a yegg ci yàlla faaw nga yegg ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam boo pare bàyyi na solo lay wax ni wa mahma taqul laa laa sabila li wasli man tuxibu fa qul laa laa araaka siwaahu fa anta muraadul kulli wal kullu waasilun mahma daraka al abdu naala munaahu bàyyi ne yonentu sallallahu alayhi wasallam boo ba yegg ci péyam daf naan la yàlla moom doo ci yegg ko moom waaye mu ne boo bëggee noppalu ne ko gisuma yàlla muy keneen ku duwut yow ndax yow yaay namm namm ak ñépp képp ku jokk ci yow yegg kon yonentu bi sallallahu ci lañ xamee yàlla wa hadihi lmaari mahabba boobu leen bëggeel nag min al xaqi bu tukkee ci yàlla fi xalqi ngi aju rek ci amal mbindeef yi mooy faax boktu boobu كان أول موجود عن هذه المحبة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنجك أمل تم أجو تم بجيل جوب ميرو بيرنت صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي وقع فيه المحبة الكلية من الحق نحن نحشي مواملة بجيل دي دج لب tabbi ci moom bam jugee ko ci xaq moo tax yàlla lépp lum amoon daf ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam def mu taxaw ne maa yàlla loolu lay bàyyi wax iraatu iraadatul xaqi azal nam na ma bi yàlla bi mooy azal waaye nag fa kaana xaysu lam yazal nekk na nekk goo xam ne musu fee jub te du fi jub ba mukk kon wa wa wa anhu wa an tilka almahabba tafarraa wujudul kawn wa an tilka almahabbati wa anhu walees moom wa an tilka almahabbati walees woowul mbëggeel tafarraa la bànqaasoo wujudul kaw ni nekkitefu kaw bi fa huwa aslu sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi mooy cosaan ak mbindee loolu la bàyyi di wax ni nuuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali léegi rek bi sallallahu alayhi mooy njëlbeen ak xam ci lu am mooy cosaanu bàyyi di cosaan doon wal kawnu kulluhu far'un anhu kawnu bi yëpp la bu bu bu bu ci yonentu bi sallallahu alayhi فلا يشك أحد في شرف الأصل على فرعه أمود كن كي أمسك ساكتي تدنك لنا كمنا جسان لنه جنكو تد أي أي أي أي فروع لأنه لما كان أول موجود انصب فيه بحكم محبة الحق جميع ما أراد إبرازه للوجود من الجواهر والأعراض والمنح والمواهب ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu nekkee njëlbeen ak nekk teef rek yàlla dafa sotti ci moom ci àtteeg mbëgg mbëggeelam moom yàlla lépp loo xam ne bëgg na koo feeñal ci ay xeetu ndàmb ay xeetu aaraat maanaam ay gaar gaar gaar ak i may ak i euh, mawaahib ak i may wa jami asaari karam ak mboolem jeexitalu tedd nga yi wal mag ji ak ak teraanga yi wa jami asaari sotwati wal qahr ak mboolem jeexitalu fetteer lu yeeg fa jamaa subhanahu wa taala fi tilka alxaqiqati almuhammadiya jamii ma dukira ijmalan wa tafsilan yàlla dajale moom subhanahu wa taala ci boobu xaqiqatul muhammadiya mbooleem liñ fi tudd summa jaalahu manbaan wa unsuran min jamii ma yasiri ilal akwaan mu def ko muy ballukaay ak ma boo xam ne ci lay ballale lépp loo xam ne day yegg ilal akwaan ci mbindeef yi min jamii ma dukira ci lépp loo xam ne tudd nañ ko rek jumlatan ci lu ñu boole wa tafsilan ak ci lu ñu teqale ëzalan wa abadan ci ëzal ak abad wa muxaalun bi xukmil mashiati l ilahiya lu jomb la nag ci atteb coobareg yàlla an yubrisa shay'an fil wujudi jawharan wa aradan mi ma daqaaw jàlla xaarijan an xaqiqati muhammad lu jomb la ci atteb coobareg yàlla gi yàlla di feeñalaat leneen ci kaw suuf xam ndàmb la wala ard wala lu bu mu doon ak lu mënta doon lu ndaw wala lu mag luy génn xaqiqatul muhammadiya amut fa ida araftaha soo xamee lii nag ittadaxa laka sharaf hadihi al martaba tedd ngaak boobule garaat dina la leer ma ma min tajalli sirril maktum ànd ak lim làmboo ci te jëlli maanaam feeñuwaayu mbóot miñ ma wa maxtasa wa maxtasat bihi min al minahi mawahib wal ataaya ak li nga xam ne yàlla jagleel na ko ko ci ay kado ak i may wa tuxafi zahir ak may yi feeñ baatina te gi nëbbu allati la matmaa li gayriha fi nayli aqalla qalilin minha nga xam ne ku doon pour jot ci lu gën a tuuti بوجه أوضح ci anam bu leer min wuduhi sant ba gën a leer jantum jolloor wa xaytu arafta hada ba nga xamee loolu nag arafta annahu laysa fi l imkaani ashrafa wa akmala wa ala wa ajmala min hadihi sura li nga xam ni ci nekkteef yi amul ku gën a tedd wala nga gën a mat wala nga gën a kay wala nga gën a taaru bi leen melo bi lay melo al maaluma biñ xamee al biñ xam al kawniya muy côté kawnu bi te wahiya al xaqatul muhammadiya mooy xaqatul muhammadiya alayha min min allahi afdal salaati wa azka salaam yal na yàlla julli ci moom gën ji julli te sëlmal ci moom gën jaa teey sëlmal lii mi ngi bokk ci imlaaw mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu yiñ imlaa kii di sayd alin harazim radiallahu anhu